waaw dama ñëw fii di xarit di kóllëre gu yàgg bu am sama digganteek sëriñ bi te yàlla def sëñ abdu Aziz Ba daan ko dox ay yooni yoon dem naa bopp ziyaari sëriñ bi tàllal ko samay loxo dafa am sama xarit boo xam ni moo ma jëkk indi fii yàlla def na ni tey dundatul mi ngi tudd Yuri Sàll turandoom moom ak Thierno si ak amadu Ba ñu ngi bokk oto moom laa ñoom laa jox oto ni leen jiitu leen ma Medina Gunaas ngeen yëgal sëriñ bi ni maa ngi ñëw bopp laa jëkk jëkke nit ma sëriñ baa nga Gunaas ñoom yàlla def démb la seen oto paan xaw ma dara si ñoom ba tey lan laa leen di soog a jot ñu wax ma ni ma ñu ngi Tambacounda di defa seen oto te man biig jaar naa Tambacounda suñ ma ko waxoon kon dama leen di jël indi leen oto jox leen beneen oto waaye li ëpp solo mooy teg naa sama tànk fii ñëw ziar si fii bërëbu ñaan la bërëbu ziar la ma gën bëgg ma bëgg ngeen jottalil ma sëñ bi cofeel bi ma am si moom ngeen jottal ma sëñ bi yaakaar bi ma am si moom ndax man dama gëm lislaam nitu lislaam laa ku gëm lislaam laa ëllëg bëgg naa taxawal ministère u lislaam bu am solo boo xam ne dina toppatoo këru diine yi dana toppatoo jumaa yi jàkka yi daara yi dana toppatoo aji màkk bi man maa doon toppatoo aji màkk ministère des affaires étrangères waaye xam naa ni su suñu amee ministère boo xam ne moo koy toppatool boppam dara du si am jafe-jafe kon li si des mooy ngeen jottalin ma sama ziar sëriñ bi wax ni que taalibeem xaritam soppeem ñëw na ba fii ziar su ko tàllal ko ay loxoom mu ñaanal ko su ma leen gisee rek wax naa ak Abdou Aziz Ba gis naa leen sama xol sedd na xam naa sëñ bi lu jiitu àjjuma ji mu ngi ci zawiye bi am lu ko war digganteem ak am mu koy taxawu kon jottali leen ma ko sama ziyaar ak sama ñaan wax ka ni ko sant naa leen gërëm naa leen si teeru bi ngeen ma teeru yógu leen ma te ngeen teeru ma teeru bu mel nii lii moo wóor ni yéen ay nitu teraa ngeen ay nitu yiw ngeen kon maa ngi leen di tàllal sama loxo di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah yàlla su fekkente ne tudd na ci nit ki ni nañ ko xam. Mm, yow nit ki di ko xam. Mm, ñi mu xam. Mm, ñi mu xam dinañ ko xam ñi mu xamul tam dinañ ko xam comme que yàlla tudd na na nekk ku ñu xam. mais nit ki ay jëfam. yu jiitu. jëfa jëfam jooju dina may xam-xamu ñeneen ci nit ki nee na loolu moo tax comme que yàlla moo wax ne nañ ko xam moo tax moom yàlla dañ koy xam rek nee na moo tax xam nañ la bu baax a baax sa taxawaay ak ci ñi nga wax ak sa taxawaay ci ci réew mi fa nga féete woon jëf jooju ñu bëri xam nañ la ci ngir sa rafetal ak sa baaxal bi nga ni ni nga defoon ci ci bi nga fa nekkee nee tànk yi tànk yi la fi indi tam tànk yu baax la tànk tànk yu xelu la tànku yu teraanga nee na loolu moo la fi indi nee na yàlla xam na ne su fekkente ne Ceerno yëgoon na ni eh, say tànk dina fi ñëw tey di di fi fekk jëmmam waaye yàlla seede na lu ma juróomi at nit ki suy mag dina am loo xam ne yaramam dootu ko àttanati ginnaaw su jullee fajar pour nit ki mën koo gis e, e, e, ci biir dëkk bi gis ko fekk tisbaar jotagul loolu yombul waaye sa tànk fii moom kontaan nañ ci tànk yi teraanga la te ñu la fiy daral bu baax a baax ñu ngi lay ñaanal tam bu baax a baax a baax a baax a baax ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax a baax nee na bismillah ñu ngi lay dalal bu baax a baax a baax sa jotaay fii depuis nga yegg ba léegi ak li li ñu yàlla xamal ci yow fa nga toll waaw sa mën a toog fii ko foti nii xaarandi lu toll nii ɗum ko loolu teral yàlla la teddungal ceerno ak teral cee sëriñ bi teddungal madina ak teral tam béréb bi la xam nga li nga war a def def nga ko ñëw nga yàlla dina la fay ay donte sax ñaanuñu rawatina nag su fekkente ni ñaan nañ yàlla dina la koy tànk yi ba mu sëkk incha allah taala kër ñoom def ñaan ñaan dañ ca naan